j'ai vu encore un autre problème derrière li femmes yi di dund mooy euh, avortement quand c'est c'est inceste ou viol te loolu ñu ngi koy xoolal cause def ay publicité dans les rajo ay publicité yu timide il faut que femmes yi assumer loolu nit nit sooy def dara da nga koy ñeme te léegi. maanaam avortement médicalisé médicalisé ñu autorisé ko. déedéet dans les cas de viol. yàq ëmb ñu autorisé ko non non non gis nga li ngay waxe nii mooy comme fatwa bi Mauritaniens yi def. pour pour installer l'amalgame dans l'esprit des gens. non non waaw ñu autorisé ko su nekkee. avortement su nekkee baay bi baay moo ëmbal doomam. waaw walla ñu violé xale bi c'est le combat de de l' euh, de l'AJS te léegi nag combat boobu man dama bëgg ñu yóbbu ko si benn dimension su ñu waxee ñu ne femmes yi ñoo ko bëgg ñooy xeex nangam référendum mu ngi fi nañ ko def référendum. dëkk bi pour pour ñu. ñu def référendum. oui ou non autoriser. oui ou non en cas de viol ou d'inceste. parce que fii référendum yi ñuy def nan la da ngeen bëgg a def euh, xawma élection nangam. on parle que de viol ñu bëri sànq nañ leen ci te dara du ci dëgg. non je quand il y a quand je parle boobu moom na wala amul. fekk na boobu c'est avéré parce qu'il y a une grossesse on a dépassé ce stade du doute. Ah, yow wala nekk ak sa copain mu ëmbal la nga bëgg ko yàq dem ni daf maa violé après d'abord bala ñoo wax dara ku góor ki la ñuy njëkk yow li ngay wax ni parce que boo nee en cas de viol déjà déjà déjà bala ngaa yàq bi te pourtant Sénégal ratifié nañ ko ci protocole Maputo. bala ngaa yàq ëmb bi rek. dem nañ ratifié ko dans euh, au niveau. Euh, Ramatoulaye 2003 voilà. Ramatoulaye ratifié nañ ko boo demee donc mënoo ratifié ay convention ba pare doo leen bëgg appliqué boo demee ni da ngay parce que dañu la violé déjà la première chose mooy ana ki violé ki violé donc dañ koy teg loxo et souvent xam nga ni tamit. non non man je ne suis pas xam nga yow fi mu li ngay wax ni no on parle de cas yoo xamante ni c'est avéré parce que yooyu aussi suñ koy def day am lu koy encadré day am benn loi day am kii ñu dem ko ci référendum sénégalais yépp tontu ci muy góor di jigéen ànd nañ ci ñu ci et puis on essaie d'avancer mais depuis des années on tourne en rond dans cette histoire hmm. il y a des jeunes filles qui souffrent camp pénal bi pour cent des prisonnières là-bas infanticide moo leen fa teg lan moo leen fa yóbbu il y cas de viol il y a des incestes y même des femmes qui sombrent dans la démence. li ngay wax parce que c'est des exceptions. non am na c'est des exceptions c'est des violences. am na ñoo xamante ni infanticide yi dañ ko def volontairement. waaw loolu yëpp am na. Ah. mais li ñu dem ba ratifier au niveau. régional muy Maputo bu dee amoo droit. yàq ëmb non loolu. mais ñu dem euh, ratifier ko parce que ni ngay waxee ni day indi amalgame parce que qu'en Mauritanie femmes yi dañoo nekk ci affaire autorité parentale. mais gars yi dañoo dem ci jumaa yi xutba ko ne femmes yi dañoo bëgg yàq société bi yàq li yàq la te doon autre côté dañ leen nangul suñu divorcé ñoom Mauritanie femmes yi def fet siiwal ko publicité. ah oui pour mën ñu bëgg leen bañal droit boo xamante ni seen droit la. comme nañ ko waxee mm-hmm. sànq.